ñun secteur d'activité yëpp mu ngi ci informatique économie digitale mm-hmm. daanaka mm-hmm. lépp a ngi ci télécom daanaka ñëpp a ngi ci biir comme ni mu ko doon waxee mm-hmm. léegi moom defe naa maanaam murid yi weesu nañ ndax anne cinquante yi lañ ñëw di def liggéeyu liggéey taax yi waaw mm. année cinquante ndax murid bu njëkk tool rek lañ leen xamee woon toolu àll ba yore tool wala nga nekk sa tool toolu sëriñ la lañ xamal waaye année cinquante yi lañ commencé dugg ci taax yi mm-hmm. waaye soo xoolee bu ñu ñëwee fexe nañu ba kon kon ni ko doyen Albert waxee dugg ci secteur d'activité yi yëpp mm-hmm. soo dooyee tey lu mel ne transport soo xoolee mm-hmm. investissement yi gën a mag ci transport privé ay murit ñoo ko def ah, te soo xoolee ay ñoo xam ne ci daara lañ jógee lu mel ne ay Njaga Njaay <laughs> xam ni du ñu jeex xam ni ñëw nañ ba soo demee ci immobilier noonu loolu intelligence sociale la. Mhm. boo xam ne moo lay mën a permettre soo demee ci société boo xam ni peut-être ñoom miinuñu la nga mën a dem ñu accepter la premièrement. Mhm. nga mën a xam li ñu soxla. Mhm. mën leen offrir ay services mën leen offrir ay produits yoo xam dinañ ko soxla. mu jariñ leen ba noppi ba noppi jariñ donc kuréel gi loolu mooy xalaat bi daal lépp nag dafay jëm ci suñu maître de pensée weesuwul sëñ Tuubaa mm-hmm. sëñ Tuubaa moom ci la ñuy xalaatee léegi nag loolu mooy indi économie solidaire bi nga xam ni moom lañ soxla ndax capitalisme moom fi ñu toll ñëpp gis nañ ay mm-hmm. limitam mm-hmm. capitalisme lu mu li mu créé ay socialisme yëpp li mu créé mooy euh, dafa créé benn minorité boo xam ne dañu yore alal ci àdduna bi dominer majorité bi. dominer nag ñoo xam ne moom dañ leen di dañ leen coofal rek di leen loolu moo am si àdduna bi. te saa yu jamono méttee. ñi gën a am alal dañuy gën a am alal. ñi gënoonoo ñàkk di gën a ñàkk. Mm-hmm. loolu nag économie boobu ñëpp gis nañu tubaab bi sax ñu ngi koy commencé bàyyi comme ni nga ko waxee di dem ci économie positive. Mm-hmm. économie collaborative. Mm-hmm. économie solidaire. xam ne yooyu mooy yi nga xam ne mooy mën a jariñ lépp ndax li ñuy am dañ koy bokk la ca des ñu investiraat ko mu jéem a jariñ. loolu nag mooy li mu doon wax sànq ci maanaam ni ñuy financer projet yi loolu sëñ Tuubaa moo ko moo ko jàngale ndax jumaay njaarim bokk na ci taax bi gënoon mag ci ay jamono. Mm-hmm. boo xam ni sëriñ bi projet sëñ Tuubaa la. Mm-hmm. ndax suñu borom moo ko moo ko may jumaa ji ca ba mu nekkee ci géej gi. Mm-hmm. ndax dafa teg ñetti ñetti ñetti ñetti ñetti bant bëgg a taxawal julli am ku ñëw. déjjiti bant yi sànni ko ne ko fii jumaa xewu fi mhm. <laughs> ah, ba noppi wax ko ci wax yu dëgër mhm. ah, sëñ bi nag boobu ba mu ko waxee sëñ bi toog moom di sant yàlla rek comme ni nga ko waxee mhm. résistance positive boo xam ne dafa dafa dafa dafa pacifique di bind rabbana axrijna rabba raditu anil mawla taala allazi rabba fuadi wa ahanaani akrim bihi rabba di ko wax ba ci biir suñu borom wax ko nag dinaa la dinaa la dinaa tabaxal jumaa ju mag ci sa ci sa ci sa ci sa ci sa réew mm-hmm. xam ne bu mu ñëwee nag da tàmbali projet waaye bu mu koy financé comme ni mu ko waxee sëñ moo njëkk a wax ni ku la mënal sañal la ku la mënal mm-hmm. daf lay sañal mm-hmm. mu ne nag dama bëgg wan leen yoon woo xam ni bu ëllëgee lépp lu ngeen defate na ngeen ko jaaree ci yoon woowu nga xam dafa laaj euh, euh, téeméer ak ak ak ña ak ñaar fukk ñaar fukk ak juróom-ñett defe naa. ñaar fukk ak juróom-ñett 28 francs xam ni moom la laajoon wax murit bu nekk. na ko joxe ba noppi bind ci nag yu yéeme soo demee ci xikmatu Cheikhu Xadim di nga ko ci fekk yoo xam ne ku ko joxe li la ci suñu borom di fayee wax ni murit bu ko amul sax na nga ut ku la ko ku la ko jox nga joxe ko ba soo ko mënee delloo nga delloo ko nga xam mm. bañ ko joxe alal jooju lañ dajale tabax jumaa ji projet yu mag yëpp mu doon raay bi mu doon jumaay Touba. Mhm. ba bi ci gën a récent muy université. université bi noonu lañ ko. Masaalikul Jinaan Masaalikul Jinaan Cheikh Sidi Mokhtar saa yu ñu màggalaan dafay wax ni joxe maanaam pièce bu nekk wala billet bu nekk yu yu gën a ndaw bu ci ne ñu joxe ci benn suñ ko dajalee. Mhm. di financer projet bi nga xam ne loolu moom mooy euh, financement participatif. crowdfunding bi nga xam ne anglais yi dañ koy wax. Mhm. moom moom la ñuy financé mbir mi gis nañu Mountakha li ñu li mu réussir ci Touba nga xam ne beneen projet la boo xam ni comme ni nga ko waxee li muy mooy ay nit ñoo xam ne dañuy mën jiite jàkka ja mën a ñëw tamit jiite comme ni ngay waxee problème yi am ci magistrature ñoom mën a ñëw jiite magistrature boobu nag day fekk ñu am jikko yoo xam ni suñu suñu jiitee dañuy fàtte seen bopp mën a jariñ nag nit ñi ba noppi nag def la yàlla digle ci la la nga xam ni moom lañ yore xam ni ëllëg lépp loo jëf ak suñu borom dina la ko fay Mm. loolu xeetu nit yooyu nag suñu amee nag société bi nag ci li ñu mën a dund wóolante mën a am mm-hmm. ndax soo xoolee fi ñu toll loolu mooy suñu suñu jafe-jafe kenn wóolatul kenn mm-hmm. <laughs> kenn wóolatul kenn te soo xoolee label Touba bi nga wax man ba ngay liir sa revie de presse bi rek pendant dix minutes sëñ Mountakha ngay wax. Mm-hmm. waaw mu ngi noonu. loolu bokk na mooy une garantie qui fait vendre. waaw nga xam ne sëriñ bi su waxee dara rek. maanaam suñu xëyee titre yëpp dañ koy dañ koy titre jëm ci. bien loolu day wane dimension bi nga xam ni euh, label Touba am na ko ak lépp loo xam ni maanaam dafay dafay jóge ci sëñ Touba ndax sëñ Touba dafa ne baraka ni fiir xarakaati wa sukkuun rabbil la si xadd xaadali kun fa yakun neen suñu boppam dafa barkeel sama yëngu ak sama dal mhm. maanaam lépp lu jóge si moom rek wala lu tuddoo si moom rek day barkeel mhm. <laughs> loolu moom lu ko yàlla may la